def mbokk internet yi mbokk ñu ngi woon mbégte bu baax ak contentement ñu nga xamante ni mooy wakaam seet si waat fi Serigne Cissé bu Serigne Babacar lu yàggul dara nag mbokk yi jël si woon nañ ko gis ngeen macha allah fu nekk si réew mi fu waaye mën a nekk rek ñu ngi ñuy woo du ñu laaj numéro Serigne Cissé naa wax nag bàyyi leen kàllu ngeen di woo mi parce que dafa dafa sonn Serigne Cissé ngeen di woo mi ngi affiché si baat d'écran bi ku ko bëgg a jot ku nekk rek woo ko foofu moom Serigne Cissé mu Serigne Babacar borom seetu loxo yi seet ba ngi yëndal réew mi jamono ji ñuy toll sëñ Cissé mhm. réew mi jaxasoo na ba mel ni fiilu courant te ñu bëri bëgg nañ nag ah solution daal di ñëw mhm. Modou Lo ak Siteu ba gi dem ba dem nañ si terkindaa yi mhm. ñu lancé leen pic yéen ñi nga xamante ni yéen nekk si kaw Modou Lo parce que doon mu daan lañu indi si bi le combat ku taxaw seen kanam bëgg leen nga xañ ñu jëf leen ak yow maa ngi lay nuyu di la ziar di la bàyyi na ñoo <laughs> alhamdulillahi rabbil alamin la hawla wala quwwata illa billahi alil rabbi sarax li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk yu baax yi ñi nga xam ne yéenay bàyyi xel li ci réew mi TV ak Serigne Cissé mu Seydi Aboubacar Sy maa ngi leen nuyu ci baatu asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu rawatina sama soppee ca jaskoora ba ñëpp ñëpp yàlla yàlla fayal ma leen da leen fa yóbbu muy lu nu am yàlla yàlla yombalal leen ko mbooleem koo xam ne yaa ngi ca diaspora ba rek ñu ngi lay nuyu mm-hmm. lu tarkindaay wax tarkindaay kenn leen doomu daan lu indi la ma cay wax ku ko nga xam xaar ma ca kanamu émission ba bismillah jërëjëf la répétition est pédagogique loolu la tubaab wax wala waxaat nag du bëri wax waaye mm-hmm. gën a leeral la wala gën a fàttali ñi nga xamante ni seen déggukaay dafa des mm-hmm. sëñ Cissé mu sëñ Babacar Sy ku la xam xam la ak seetum loxo mm. seetum loxo bi lëmb na réew mi ñun ñee am soxla te xamul nu ñu koy fajee te yaakaar naa bi ngay ñëw léegi la nga leen solution sa diggante ak seetu loxo bi yaa maxsaral jinni wal insi ini sa taxtumoo an tanfusu mina qataari samawati wal ardi fanfusu la tanfusu ila bi sultaan hmm. benn wéykatu arab day wax ne fama saa kaana wa ma lam yasaa waaw yàlla li ko soob rek lay def yàlla maatay lay doxee maatoy ndax kenn du taxaw ci kanamam maatay la yàlla di doxee nga ne li ci loxol borom bi la ne. Hmm. yàlla dafa dogal ci réew mii ñu nekk muy Sénégal. waaw mooy xam ki nekk ca diaspora ba. Hmm. moo xam ki nekk fii ci réew mi. nga am ay problème te problème yi xamuloo nu mu problème woo. Hmm. boo bëggee xam say problème sëriñ si dana sa loxo bi yónnee ma ko. da nga am ay problème te problème yi xamoo nu mu problème woo. fotal sa loxo nga yónnee ma ko dinaa la wax problème yi fu mu jógee ak la ko waral. te pour ma wax la ko nag du lenn looy def lu dul. sa loxo droite bii ngay foto. boo ko fotoo nga yónnee ma ko man Serigne Cissé taalibe Serigne kër si bii mm-hmm. nga xam ne baa Serigne Mame Malick mii moo fëggoon sama bopp ne Serigne Cissé ma ne la béyka mu ne ma réew mii bu nu jaaxlee ku jaaxle dana yëkk téléphone am woo la borom daara jee ma ko wax man Mansour mm-hmm. moo tax ma ne la maa gone yi na nanoo bokk école bu nuy jàngee mm-hmm. waaye classe ya bokkunu ndax sëriñ si ne ndigal lay doxee ak sañ-sañ mhm. wax ji li muy bari bari sañ-sañ laa ci ànd ak bu mbat sëkk ndax ginnaaw bu way jur yi weesoo dama dajeek mag mu baax doomi sëriñ Babacar Si mhm. mu fëgg bopp bi na ma siise ma ne la bayka mu ne ma ku jaaxle ci réew mi woo la dangaa ami problème te problème yi xamuloo nu mu problème woo nga bëgg xam problème yi nu muy réglé woo mhm. fotal sa loxo bi man sëriñ Cissé mu sëriñ Babacar nga yónnee ma ko ma wax la lu dul dañ te boo defee sarax yàlla dimbali la sa amul leneen loxo kese ngay photo yónnee ma ko mm. man Serigne Cissé mu sëriñ Serigne kan ma wax la yan mooy xeetu sarax ya mm. ak la waral problème ba ak la ko def ak la koy dindi mm-hmm. man ngaa xam problème waaye xamula lay dindi problème Serigne Cissé na danañu xam problème ya wax la lay dindi problème ya mm. boo ko defee yàlla sagal la insha allah te pour ko il faut ñu seetal la wax nag day ànd ak signature bu amee insha allah kuy nit ku baax nag la moytu wax ju amul insha allah nag Serigne Cissé jooju wax ñi mën naa koo weddi waaye bu ci insha allah xasee dugg Serigne Cissé amatul ca pexe waaye li ma lay wax yow mi toog di ma seetaan di Serigne Cissé officiel mm-hmm. wala li ci réew mi tiifi mm-hmm. fotal sa loxo rek yónnee ma ko loo bëgg xam ci sa bopp di ko xam insha allah boo a ak dogalu borom bi subhaanahu wa taala laaj ma leneen waaye sa waaye sëñ bi yaakaar naa nag euh, problème këy bi si réew mi mm-hmm. sëñ bi nee naa la réew mi jamono ji jaxasoo na ba mel ni fiiru kóora xale yaa ngi wut këyit mënuñu am këyit lan mooy waral loolu rab lan la ay gaaf la wala lu mu toll sëñ bi mhm. kumute dana am rab mhm. dana jàpp nit kumute dana am mhm. yooyu yëpp ay mbir la nag rab na ku ko amul ci àdduna amul muy Serigne Cissé ku mën a doon muy bu baax bi wala bu bon léegoo-léeg ma gub sëriñ ne dinaa la tàqaleeg rab ma ne ko déedéet rab ke rek boo ko tàqaleeg nit ki kullu nafsul saayiqatul mawti waaye kullu man alayha fanin loolu nag kerek bu amee yàlla yéex rek lañ cay tegu kon yow mi ànd ak rab bu ban mu lay yàqal si sa wàllu am am ndax nit a am alal ju bari mantu dajale dara nit a ngi dox dara ba mu war a sotti mu xëy yàqu mm-hmm. loolee nag la koy waral sëriñ si seen du lenn lu nu cat dalaa topp ñaareel ba rab nag dana tëj buntam nit Serigne Cissé ne mm. yow mi rab jàpp wala cat jàpp la Serigne Cissé ne loolu lan la ñuy def mm. dañuy dem ca xulwa ya ilaya annawu sama nafaru mm. minal jinni fa xaala naa samina quraan a yax di ila rusdi fa mana bi ba ilaa axiri Serigne Cissé ne foofu la ñuy yem mu ne déere law anzalna asa qur'aanu ala jabalin ba ilaa axiri buñ ko bindee ba pare defal la ko ak sangat nga sangoo ko bu la rab doon yàqal dootul la yàqal waaye bu fekkee ne nag danga nga mugg mucc ci làmmeñ wala bët bu bon fa tabaarakallaahu ayatul kursi yu la ñuy bind aaya bu ne fa tabarakallahu dañuy dugal xulon su béré bi fàlla xulon su béré bi naasi bala nu soxla mm-hmm. bu la rab doon yàqal dootul la yàqal bu paree lan lan koy booleeg mm-hmm. mu ne dañuy wut xasum xay renu mm-hmm. ngeer renu fuuf ñu boole koog moom nga def ko xamb di ko sangoo bu la rab doon yàqal dootul la yàqal bu la bët bu bon doon yàqal dootul la yàqal bu saay-saay seen jonkoor réñoo la nañ la lay yàqal danañ la xeex te yàlla kiiwute fa tabarakallahu du am eh. kon ki bëgg kay te mbiram tëju tëju nag boo ko xasee def rek moom dara du dox nit ñi mën nañ la yéene bëgg laa defal fa tabaarakalaahu dara du ñëw waaye yow mi tëju te am jafe-jafe am gàllankoor Serigne Cissé ne bu fekkee ne doyloo nga borom bi subhaanahu wa taala mm. Serigne lii ma wax la ku ñu ko liggéeyal incha allah yàlla taxaw la ak lan ñi nga xamante ni aussi ñu ngi sëy mm-hmm. deux ans mënuñu am doom mm-hmm. ñu bëri jàpp ni ay mm-hmm. njëkteef la ñu bëri jàpp ni ay liggéey yu ñu leen def la Serigne Cissé yàgg ñooñu ki nga xam ne dafa nekk ci biir néegu sëyam mm. ñii dañuñu jël ëmb muy tuuru ñii bëgg a jël ëmb mu tëleen mhm. ñii seen régal di tardé waaw ñaareel ba nag fa tabaarakallaahu yi ñett ma wax ko mu dal ko ci ki nekk ci néegub sëy bi mhm. bu dee ñaari wuy dencante la sëriñ Cissé mu sëriñ Babacar ne mhm. yow mi am problème mu sëy mbaa xam nga ne poftan kese poftan waaw boo xam ne danga ko fekk mu sax nga dagg ca xob ba fa tabaarakallaahu am na ay bu nuy bind ca xob ba nga tabaarakallaahu nga xooj ko ca naan ko insha allah boo ko defee yàlla dina la may doom waaye nag lan moo tax ngay jël ëmb doom ji du lan moo tax ngay jël ëmb ëmb ba di tuuru wala lan moo tax fa tabarakalaaw yi yëpp nekk ci yow mm. sëriñ si ne yow mi bëgg doom mm. di ma seetaan wax naa la bëri ki démb ci émission bi mujj ne mm. wa samaa i wa taarix wa ma adraka ma taarixu am nañ mu sàqi ba ilaa àqir yi buñ ko bindee dana ñu dem ba ca biir saat googu la ñuy ubbi jël sa turu jëkkër dugal jël sa turu jabar dugal mu doonu téere ñu wut ren biñ maanaam euh, fa tabaarakallaahu dinañu ut nenu nenu nenu jargoñ fa tabaarakallaahu ñu boole koog moom boo ko booleeg moom nga aw ko mu mm. doon ab cëw di nga takku ko kerek boo ànd sa borom kër yàlla dana dogal nga jëlub ëmb fa tabaarakallaahu li ma lay wax nag du sami wax bopp de alquranul karim laa la wax waxuma la mm. mag ma nee naa góor ga nee na al mm. alquran laa la wax alquran dina ku ko bind moo bind sëñ Cissé mu Seydi Aboubacar Si kon yow mi bëgg doom lii laa lay jëfal boo ko jëfee am doom mu ñëw boo ko jëfee yàlla may la doom te pour loolu am fa la ñu contact sëñ Cissé ma boo ko jëfee yàlla may la doom bu ko mënee def na bu ko mënul def dana ma woo <laughs> woo bi du force waaw sëñ mais bi nag taay nañ dëkk bi yëngu mm-hmm. bi jaxasoo na na sëñ bi lu ko jaxase nag mm-hmm. na mm-hmm. xam ne dañ koy defal dëkk bi wala ñaan bi nga xam ne dañ koy baaxee dëkk bi pour que nag aajo bi lan ngay doon aajo bu may baaxee leen waa dëkk bi waa dëkk bi daal ku ci bëgg sa mbir di baax bee fii bee fële waaw lenn rek a mën a tax mm. mbaa yëg nga ne gars yi léegoo-léeg nga ne dal def astaxfirullah aziman lasi laa ilaha illaa hu mu ne astaxfirullah lu ma mën a maye xaalis sëriñ <laughs> Cheikh Tidiane si almaktoum bàyyi sëriñ Moustapha Moustapha si diin daan na wax ne mm. bu fekkee ne dangaa bëgg même njaboot sax boo ko bëggee dal tax istaxfiru rabbakum innahu kaana xafaaran yursilu samaa'a aleykum midraaran ba ila axiri mm. mm. sëriñ Cheikh al Tidiane si almaktum ne ne ba ci njaboot boo ko bëggee dal sax si istaxfiru rabbakum innahu kaana xafaaran sëriñ mm. bu fekkee ne da ngaa bëgg bëri alal dal sax ci istaxfiru rabbakum innahu kaana xafaaran sëriñ Cheikh Tidiane si almaktum nee na bu fekkee ne da ngaa bëgg bëri jàmm sa yaram wi am jàmm nga am jàmm ba koo jàkkaarloo mu am jàmm dal sax ci istaxfiru rabbakum innahu kaana xafaaran loolu nag boo ko bëggee dégg sama sëriñ sëriñ Mansour borom daara ñu ne jàmbat saabu nag mën a bëri saabu mën a fetee ko gën na walaay walaay di xamal te di romb amul njëriñ hmm. fa tabaarakallaa kon yow mi may seetaan te bëri bëgg bëri ay xéewal bëgg bëri hmm. jàmm hmm. sëriñ si seen daal tax sax si sax astaxfiru astaxfirullah ban lim nga koy def mu ne mille cent onze bi baax na cent vingt bi baax na yii yëpp boo koy def yii boo ci yéene yàlla defal ko ab yére nag bu setee neex a sol bu setoo du neex a sol du neex a sol dégg nga wax <laughs> ndab lu setul kenn mënu cee def dara jëmmi doomu aadama yi bu setul dara du fa taxaw wax la dégg la laaj waaw moo tax ma ne la jaam bi nga xam ne ndax bàkkaar yi boo gisee réew mi ne tekk mm. yëfi yëfi yëfi doxul kañaan gi bari mm. te ñu ne ab jullit bu ab jullit pour mu baax dafa mm. war saa su jullee xolam di gën di laab naka ngay defe ñin ñëpp li ëpp ci doomi aadama yi ñu ne ay jullit liñ saa suñu xëyee li nu gën a bëgg ci sa jëmm la ñuy rëkk ci suuf si di gën di soxor jullit dëgg wartu soxor jullit dëgg day baax fii ni ngay mënee di kabbar allahu akbar jël sa kanam gu ruuf suuf si te di gën di bon kon nanu fóot xoli fóot bàkkaar bu buñ ko defee yàlla defal mbir yi moo tax ma ne la sëriñ Seex waxoon nañu ko defi muy lan nanu tuubal yàlla buñ ko tuubali rek yàlla baaxal lépp mm-hmm. waaye borom lax dar yi dafa waxoon ne wasuratu tawbati naka sartay tuub mm-hmm. muy ne na daamu na nga réccu xalaamaa ci lépp loo xam ne mm-hmm. faata faat na ko wa na yéetu na nga ne alaa yoxodo dootuma dellu de ilaa san bi ci bàkkaar bi nga xam ne moom laa defoon tëddee woon naa jabari jàmbur dootuma ko defati <laughs> mu leer na li de sa dund bi doo dootoo jegeeti doobi jabari jàmbur wala dootoo doxati lu neexul yàlla wéy ca boo ci wéyee loo bëgg yàlla defal la ko waaye nag tuub tey duggaat suba loolu taxul yàlla di wax kon ñi nga xam ne danoo bëgg seen mbir di bee fii bee fële nañ wax lii ma lay wax nanu def hmm. cent mille cent onze bi wala cent vingt neuf bi astaxfirullah asima la sii laa ilaha illallah ku ko ci def rek yàlla baaxal say mbir hmm. allahu akbar leer na leer na laaj ma leneen ñu tëj kàggu yi lii neexal kër ñëpp yor nañ loolu nañ ko tëb tey sëñ bi may ñu si rek parce déedéet am na ñu bëri am na gi ku ko soxla na ko jël si mbégteem kër gi ñëpp xam nañ ko ku ko ci soxla a bëgg lu lay may kàttanal sëy waaw kaay si kër gi jël si ko jeex na ñi nga xam ne ñooy tarkindaa yi lancé leen ay pic yéen ñi nga xam tarkindaa yi daal buñ ma ko lancé ma lancé leen yàlla man buñ ma ko lancé man sëriñ si ma lancé leen yàlla doon mu ñu ni de buñ ma ko lancé ma lancé leen yàlla man daal yàlla laa am ak programme te li ma bëgg yàlla ma ci doy yàlla laa koy laaj nee na ku seen kanam ñu écrasé man daal yàlla laa jël teg ko sama diggante ak ñoom te laaj yàlla li ma bëgg muy ndam laa bëgg ci Modou Lo te yàllaa ma ci doy moom laa ci yaakaar mm. maa ngi ñaan ci borom bi subhaanahu wa taala mm. mu dimbali ma roofal ma sama waaji kàttan roofal ma ko nda ndam mm. roofal ma ko sutura roofal ma ko man-man lépp di fonctionné muy dóor muy daanu maa ngi koy ñaan yàlla mais Siteu mu ñu gis ba ci démb maa ngi koy ñaan yàlla sëñ bi na maa ngi koy ñaan yàlla man lañ man man man man la ñu am ak affaire man yàlla laa am ak affaire. te Xaadim Njaay nee na yow yaa yaa yaa géré gang bi. gang bi wa salaamu aleykum.